asalaamaaleykum mbokku internet yu xibaar TV dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi dañ koy dooree ak Walfu Quotidien ñoom nag blanchissement de capitaux lañ daal di xëyee lu toll ci ñaari téeméeri milliards ci suñu koppar nag yoo xamante ni ne ñoo ngi ko daal di jëlee ci wàllum drogue jàpp nañu ne daal di ko dugal ci lu jëm ci wàllum immobilier loolu tax nag ñu daal di seeq ab waxtaan wi yaa ak économiste bi di wuyoo ci turu Amadou Kane moom nag mu jàpp ne lii di wàllum croissance économique moom dañ ko daal di piégé waaye tamit ñoom waa Walfu Quotidien daal dinañ ñëwaat ci li nga xamanteni ni mom mo nek régularisation du foncier wala régulation du foncier ça une course d'obstacle non lañ ko dal di li ni mel nak président de la république Bassirou Diomaye Fay Dal di cey sobu waral ba tax sax mu dal di génné ab arrêté dakal gep ab liggéey bu dal di jëm ci littoral ba waye tamit yenn ci ay barab yu mel euh, Saint-Louis ak Mbour japp li nga xamanteni ni mo di ndax mom président de la république Bassirou Diomaye fay nak japp nañu né li ni mel sàmmawut ak yoon waral ba tax sax mom niki dembu wala sax barki dembu mu dal di amoon fële nga xamante ni ni moo di Mbourkat moom président de la république daal di fay wàcc nag ab visite boo xamante ni nag ab visite de surprise la moom président de la république nag mu jàpp ne li nga xamante ni ni moom moo daal di nekk ca suuf soose nag nekkul loo xamante ni ni jaar na yoon ñu addu wax ci Sud Quotidien ñoom dañoo daal di xëyee li nga xamante ni moo di le carnage foncier dans les départements de Dakar Thiès et Mbour en 2020 déjà l'OFNAC alerté di ni mel nag mu mel ni bettul benn yoon OFNAC ndax ñoom ca atum 2020 nag lañ commencé woon di alerter ci li ni mel nañu carnage foncier nga xamanteni ni ñong ko dal amal ci département de Dakar ciess japp Mbour nak lo xamanteni ni ñom wa waa OFNAC yàgg nañ ko dal di artu ndax ñom ñu ne gisson nañu ne souf soosee nak nañ koy dal di caxat-caxatee jaarul yoon moo waraloon ba tax sax ñom ñuy dal di yeglu dafa melni nak di bu fekkon nañ nak du ñew do dal di lu jëm ci walum gouvernance transport public ak accident yi ñom le président de la république ni conseil des ministre démb bi daal dina jël ay mesures yoo xamante ni ay mesures yu foor la nag daal di ko jëmale ca boobu lee fànn dañuy àddu wax ci les échos ñoom nag système de transport Diomaye cible Dakar Dem Dikk et le BRT moom président de la république nag Bassirou Diomaye fay nag di sàkku ngir ñu daal di amal ay audit jëmale ko ca personnel ba waaye tamit ca ressources ya activités ya bu ci lii di gouvernance globalu Dakar Dem Dikk waaye tamit bëgg nañu daal di lancer li nga xamante ni ne moo di BRT ak moda ak modalité d'exploitation yi nga xamante ni ne moom lañu daal di fas yéene ànd ak moom kon nag mu mel ni ñoom sénégalais yi nañ ko daal di xaar léegi soreetul nag BRT dana daal di commencer di daal di daw boobu waaye conseil des ministres boobee nag moom président de la république ak son premier ministre daal dinañ maintenir cent logements yi nga xamante ni le président Macky Sall moom moo ko fi daal di woon lancé waaye tamit daal dinañ xam ne ne ay yeneen mesure nag danañ ko ca d'Aldi di toftal ndax danañ daal di wàññi li nga xamante ni ne réduction du train de vie de l'État. état ñoom bi nga xamante ni ne gouvernement en place nag ñoom ñoo daal di xamle li ni mel rapport of nag tamit ñoom ñi le daal dinañ ci ñëwaat di nga xamante ni ne ñoo di waa ZECO le quotidien mom dafa daal di xëy ñëwaat li nga xamanteni ni modi politique euh, publique faye sur la voie de Sall ñom non lañ ko Daldi di gisee moo tax ñu japp né li nak euh, ñom danañ daal di poursuivre li nga xamanteni ni modi programme FMI waye tamit état bi fas yéene na daal di jëmal cent logements yi nga xamanteni ni président de la république Daldi di woon nañ koy lancer waye tamit dañu daal di maintenir li nga xamanteni ni modi bourse de sécurité familiale mom président de la république Bassirou Diomaye fay nak moko ko daal di xamle bi mu daal di amal conseil des ministres niki ki démb dañuy àddu wax ci l'observateur ñoom dañoo daal di xëy am ab interview bu yaa buñ daal di séeq ak moom moom Adam Aminata Touré moom Mimi Touré nag daal dina xam ne ne dafa daal di choqué waaye tamit daal dina xam ne ne ñoom dañoo daal di gagné waaye di gouverner ak ñenn ñoo xamante ni ne ay compagnons de combat lañ moom loolu na ko daal di gisee moom Aminata Touré nag ca naka noonu la daal di xam ne ne faw ñu daal di yokk ay effort ndax réew mi am na jigéen yoo xamante ne ne am nañu compétence engagé wu nañ te mën nañu diriger yenn structures yi ñom ñi nga xamanteni ne ñoo di waa l'observateur dal dina ñëwaat ci nomination yi mu melni nak DG bu kudd dal dina dem Ndéné Mbodj moko fa dal di wutu Kabirou Thiam nak mom mo dal di jël li nga xamanteni ne ne di direction bu ARMP waye tamit Mamadou Habib Diop mom mo dal di jël sar kon nak mom Bassirou Diomaye Fay nak mu melni dal dina yenn ci ay directeur général yi nga xamanteni ni ne daal dina ñoo leen nemmeeku fii ci réew mi dañuy addu wax ci las ñom Sonko liste ses priorités le président de la République république ak gouvernement bu yes jiital ko ci li nga xamanteni ni moo di premier ministre di Ousmane Sonko daal dinañ xamal li nga xamanteni mom mo nek sen priorité mu jëm ci atténuation de la vie chère réforme fiscale campagne de production agricole 2024 campagne de 100 000 logements programme de 100 000 logements ñom non nañ ko dal di lister mu melni nak ñom ñi nga xamanteni ñom ñoom nek ci bopp rew mu nak paré nañu ngir dal di doxal ARMP SAR TCD FOSIP ak Dakar dem dikk nag moom Bassirou Diomaye fay nag daal dina wàccee ña fa nekkoon ñoo tax nag ñoom waa jàpp ne basiru Diomaye Faye continue à couper des têtes dañuy àddu wax ci le soleil mom transport public la xey ak état généraux yi nga xamanteni ni ni nañ ko daldi amal bala wéru juillet bi nga xamanteni ni mom lañ daldi di waye tamit ñom yi nga xamanteni ne ñoo di le soleil nak daldi nañ ñëwaat ci génne aduna Gaston Beng, ñu daldi koy duper le décès de Gaston le monde de la lutte pleure son Don King noonu lañ ko daldi gisé ñom ñi li nga xamanteni ni ne ñoo di le soleil le soleil nak daal dinañ ñëwaat tamit li nga xamanteni ni ne di déplacement bi président de la république Bassirou Diomaye Faye wara daldi amal fële ci Dakar moom nag dana daal dem fekkee loolu nga xamante ni ñoo ngi koy daal di amal fële nga xam ne moo di ca Médina Gounass dañuy àddu wax ci la tribune pagaille dans la gestion des deniers publics et du foncier la grande part de responsabilité du ministre des finances mu mel ni nag kon moom ministre des finances nag daal dina am ab part de responsabilité jëm ci li nga xamante ne ne dans la ñu voilà ça doxee wala sax ñu ko daal di occuper lii di wàllum fichier waaye tamit wàllum foncier boobu noonu nag la ñu daal di àddu wax ndaxte dafa nekk loo xamante ne ni nag dañ koy daal di caxat caxate maanaam ku ci neex nag daal di dagg ba foo sentir daal di fay yem loolu waral ba sax sax njiitu réew mi président Bassirou Diomaye fay daal di woon dakkal Sénégal gépp liggéey go ci dal di jëm opération de démaquisage moom lañ ko dal di duppee mu nekk joomaay mi nga xamante ni nag dafa dal di dàq Abdoulaye Diouf Sall Abdou Karim Sall maget sen ak Ousmane Sylla ñoom ñooñu nag ñoo ñoo jaati woon jiite zip waaye tamit rmp ba ci kuddu waaye tamit jàpp ci Dakar dem di ñoom ñëpp nag moom ki nga xamante ni moo di président de la République Bassirou Diomaye Faye dal dina leen jëlee ci bopp direction yoon dal di nekkoon

nekk na loo xamante ni ne lu doy waar la te ñoom taskatu xibaar yi nag ñu koy daal di dund ca rédaction ya wala sax ci li nga xamante ne moo maison de presse ñu daal di liggéeyee moom président de la république Bassirou Diomaye fay nag ñu daal di koy xaarandi di koy ajjuma fële ca Dakar moom nag mu war a dem foofu nga xamante ni ne moo di Médina daal li ni mel waaye tamit nomination place des hommes à RTP FONSIB Dakar Dem Dikk COUD Pape ngañ Demba Touré premier à la société des mines du Sénégal moom Pape ngañ Demba Touré nag daal nañ ko nommé foofu noonu nga xamante ne moo système kon nak dañuy àddu wax ci Dakar Times ñom nak dañu daal di xëyee li nga xamanteni né modi Cour des comptes bi ñu dafa daal di premier ministre Ousmane Sonko motax nak ñu daal di koy doupé des Cour des comptes demain le premier ministre Sonko où sont passés les 29 milliards de la Prodac wala di Prodac ñom lañ lañ ko daal di gisee Dakar Times dañu xëy nak di laaj ab Ousmane Sonko ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak juroom ñeenti milliards yi nga xamanteni né ñogi ñoo won ci projet Prodac ba fan la dal di jaar mbokk yi li lañ leen di pay di